ñëw fi ak euh, plaisir parce que si zone bi la dos, fi la magie. donc euh, yëf yi sama yëf la quoi donc euh, bi ñu décidé def une activité sportive pour que xale yi nekk lycée fii ak ci banlieue bi daje xamante nekk ben. dañ ci boole aussi euh, def rappelu benn conférence bu ñu fi defoon daaw boo xam ne dañ leen di yedd si ni ñuy dundee li ñuy lekk ak lan moo gën ci ñoom bu ñu buggee sàmm seen yaram sàmm seen xel muñ jublu si jàng ko no xale moom dañ ko war ñaax si def sport sport bu munti doon man euh, exemple bi ma mën a joxe sa gis njëriñam <laughs> wax naa leen man prétendant militaire la la jànge fofu ñu yé chaque suba ñu dem def sport tous les jours man loolu laa tàmm loolu laa miin loolu laa xam té bima démé demee ba nekk mag laa soo gis njëriñam donc bu doon sama sago bi xalé yépp dañ leen di teel a ñaax si sport lég ñom ñooy sét sport bi leen neex du athlétisme rek mën nek football mën nek basket mën nek natation ñoom ñooy seet lu leen neex loolu pour ñu xam lu leen neex dañ leen war a woon genre sport yëpp après bu ñu demee ba wane xarañ ci benn bi ñu mun leen si tàggat mais sport rek mënul téye nit si sa sa dund ba mu wëy mun nga ko boole si sa dund mais dañ leen di ñaax ñu boole si jàng waaw boo xoolee sportif yi gën a am solo si àdduna bi dañ ci boole jàng donc euh, loolu dafa am solo te gis xam nañ tamit ni sport boo koy def de manière régulière euh, sa nelaw dafay gën a xóot day gën a am qualité sa nelaw bu xóot am qualité li nga jàng si bëccëg bi si waxtu boobu la ko sa yóor di togg ba nga jàpp ko mu yàgg lool sport si dafa am impact bu leer si wér gu yaram waaw mooy tax feebar ju bari du la dal ay AVC ay diabète ay hypertension wala yaram bu nit kuy def sport de manière régulière néew du dal mais du yomb ci yow donc lolu boo tamulé bi nga nek xalé, bo demee ba mak da fay jafé. donc lolu tax buñu bolé jangalé bi ak sport régulier résultat bi day nek lu am solo ci xalé. mais man nee te ma référence moy pétané militaire fofu day gën di tane parce que dañ ci xel di ci ci xaaruñu kenn ñi fa doon jàngee li militaires yi fa def gouvernement bi buñ ko choses. tax les choses s'améliorent yeneen lycée yi nombre ñi fa doon jàng li ñu dans les années 70, 70, 80, faut multiplier wu par presque dix loolu nga gis aussi dans les hôpitaux donc yu bëri c'est parce que infrastructure yi nit yi ñu ko jagle woon dañu bare ba jéggi dayoo c'est ni mu yoko, yoko yokkoowu ko toppatoo bi aussi bu dee demeewul noonu mooy tax infrastructure yi du nek de bonne qualité sur le long terme donc lolu ñëpp ci waru jox ñëpp dugal ci seen loxo mais man dama jàpp ne boo jàngee si benn bërëb ba jógee fa ba yàlla sa wërsëgalee nga am loo mun a dimbalee nit ñi da war a bàyyi xel fi nga doon jàngee nga fay dellu di ko nemmeeku boole ak ñeneen ñu fa jàngee boole boole seen doole mun ngeen jàppale ñi fay jàngale ak ñi nga xam ni ñooy responsable loolu.